Euh, vous avez un opposant qui est en prison et qui est candidat. Ousmane. Le candidat numéro 2, il est en prison. En prison. Euh, ñooñu noonu ñooñu noonu lan ngay wax ci seen kaa boo ñëwee danga leen di bàyyi. ñu ñibbi seen waaw Ousmane de wax dëgg yàlla man su ma nekkoon président wax dëgg yàlla dama koy bàyyi man naa wax. c'est ça. waaw xam nga xam nga euh, may mun a yàlla dafa bëgg dafa bëgg dëgg. Mm-hmm. c'est c'est bien même c'est bien même il est il est, il assez intelligent Samp Diomaye mm. c'est bien parce que électorat Sénégal Ousmane quand même am na ci wàll mm. yàlla moo ko ko defal du man du keneen te it yàlla rek moo ko mën a xañ yaa ngi dégg mais man daa man sañ naa ma ne su ma ñëwoon dama koy bàyyi man sañ naa ko waaw man sañ naa ko ndax ndax lan mooy sa conviction ci dossier ci situation xam nga xam nga da nga da nga da nga jàpp ne euh, lu lu lu da nga jàpp ne lu politique lal la wala da nga koy libérer rek par euh, par humanité. déedéet pas par humanité. Hmm. Euh, xam nga kaawu Ousmane du ma ci sori trop parce que jàpp naa ne li ma ci am comme naqar wala comme bànneex moom la ci Sénégal yëpp am mu noon na def li muy def état def euh, yoon def liggéeyam comme ni mu ko defee nii. te coow du jib bal du tàkk te problème du am gis nga may mun a souvent il y des décisions yoo xam ne su ko nit di jël su ko nit di jël day xool conséquences yi man li ma wax dama koy assumer dossier Ousmane Sonko et pendant devant est pendant devant la justice mën naa ci ban a prononcé dëgg loolu du dëgg mm-hmm. mais dama ne Ousmane Sonko dans l'histoire politique du Sénégal kenn mënut si génne turam parce que ñëw na xaaru yoonam am Sénégalais yi nga xam ne ne gëm nañ ko ànd ak moom ñu jàpp ko ñu continuer ànd ak moom. mais. Mm-hmm. si du du du du du sens mérite la. donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire quest qu'il faut faire yoon mi ngi def liggéeyam na yoon def liggéeyam. man li ma mën man en tant que chef de famille li ma mën mooy ñaan yàlla na ko yàlla déggoo këram muuf njabootam